wala sa soxlaa ba amul kii doo màcc si sa gànnaaw ba léegi ndax ku laal ba nu ku laal di laal mais xalaat bu nekk la waxal ko naan ñoom dafa am ay complications yi. gis naa ay façon yoo xam ne ci biir sa góor wax naa ni xalaat yi ñu naan ñëpp daal di nga xëy na xëy na xëy na xëy na xëy na. amiin ayin siin xaar amiin ayin siin xaar waaw yàlla amal maa ngi sant mu raadu si ñoom bii daal di ñëw siin xaar. amin juróom ñaar lañ moom jagoo na amin ba noppi di fekk ci ayin sin xaar ci jamono am rek daara muraad yi moo gën a wécc ci réew waaye baa ci mbokk baare ci dina di yenn xaraf ni ci nuun ak baar ak baar ñëw na di ñaari xaraf ni ci amin ak taa ak yaasin ak taasin ñëw na ci ñaq ci alif laam miim alif laam raa saa siin miim ñëw na ci ñanant alif laam miim saa alif laam miim raa ñëw na ci juróom kaaf raa yaa ayn saa raa miim ayn siin kaaf ëpp juróom nag ñoom ñëpp ay mbóot lañ yu yàlla seen sànni ci téere yi ñu ne ay njiw dem ci kii bi seen maanaam mooy bu ko xeexoo yàlla soxal nañ ci xolam. ñu ko dugg ci kii bi ñu ko jëndal ay jënd. waaw te soxla nga dem ñu wóyoo gëm ci yow. yooyu la muy wóyoo yi lay gëm ci yow. wóyoo yi naa gëm ci ñaari ñu xam ni fooy nekk dañ dem ci sa bële yàlla mi wóyu gëm ci yow. ñu wóyoo gëm ci yow nag dafa woon ko tey rek nga gëm leen. waaw am na fi dikk ci ne déedéet bu dee yàlla wàcc na ne ah li ma leen cee faamu ko def waaye loolu sax rek maanaam mooy fooy na jëm ci yow rek mooy yoon jëm ci yow loolu teel a jëkkoon ne woy na laaw yàlla alaaka bi moom ak yàlla dina ci kuuram. yow ñaan ko maam sama waay dina ci jàpp maam bu doon yàlla maam da ngay nekk ci suñu juróom yàlla. ci moom yàlla ak a njëriñ ak a njaar. boobu moom boo alaaka bi moom ak yàlla ci kaw ay njëriñam. allah ni mu ma di aji màggale yaakaar bi dana jege sama asala sama nit ñoom yaakaar dafa xam ne bu xasee ku ñu mbokk yi ne ci kaw seen lan la fay jot sama laaj yi sa ñu rënd dañu faxaal te am dara bi ñu ñu ko la mo gën ak borom seen waaye fax na dañu balu li man ci la ñu ñu nekk ci suñu ba ci ca sama aadama yi seen bakkaar yi ñu ci ci ci ci ci da nga xam ne yàlla meew rek na lañ daane asamaan ko ñu ñu ñu ko defee rek asamaan ci biir daanu ci kaw nii waaw ko defee malaaka yi ñoo jàpp ci boole asamaan di wax subhanallah alhamdulilah subhanallah alhamdulilah di bale yàlla di bale yàlla ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si gëm yàlla de ba mu meram yàlla suuf waaw fiix rek ñu ñu bàyyi de waaw dana mer waaw kon ko wàcc mbugal waaw jëm benn xale waaw jàng rek ci jàngu waaw jàngal allah alquran rek mu daal di meram ci de ala dëgg ñu ne ni laaye ala dëgg inna allah naka yàlla wa moom alqahuru moom li ay ay yéene ka jëm ay moom li ay yërëm ne dana leen yërëm waaw su xam su leen leen li nga xam ne dana dana musal ci yenn jaamu ku barke yenn jaamu bon suuf si yàq woon leen yërëm dana ne su xam su leen gone yi nam ko waaw ak màggat yi nga xam ne màggat nañu ba sëttu waaw ak bàyyi may far ci jaww ji kon ñu taw ci yéen mugal waaw ak taw de waaye fi yàlla bëggee arak ñuy bakkaar rek seen ñetti kuréel ñu nga xam ne ñoo ñu bakkaar waaw rek ñu ñu yërëm ñu nak lay ala ta bi inna allah naka yàlla woo moom alxabuur moom la ay réew ñu ko ñu yërëm wala dina ñaana ci taxatoo jàppal ñu ñu doon ñu di yàlla dawri yaa ñu di ay réew ñi nga xam ne ñoo dem di ko ay réew di ko jaamu def ko muy jël yàlla laaw yàlla ab yi ñu aju fakkanam maa ngi ci ñoom de yàlla fakkanam mbooleem lañ ci defam la ñuy wax yëpp dañoo leen ko fay ba ma am tamit yow nag yow ak yi ñu lay aju mën a baaree ci ñoom yow nag waaw wax dëgg yi la ku ngay fott ni naa ko bàyyi ñu jàppal ji da ngay jàppal rek bu yàlla jiwoon daa la topp bu yàlla jiwoon waaw moom it dina daje yàlla de wax dëgg yàlla tamit boobu de wëññi waxee naa benn wëññi rek ci dugub ci yow waaw xam alors que yéen ñu ngi ko yéen yaaram de noonu la yàlla wóyoo ci yow alquran bi nga xam ne alquran yaaram la suñ ci ràññee na nga ràññandoo moom alquran la yéen a ciy ci makka wa man awla ñu nekk ci réewam de ndax nga waa ñu nekk makka am ñu leen wër suñu wërëm ñu ngi ko si la sama ragal la yoroon jàmm di ko xool da ngay wax ñu ngi leen tax ñu def ci nga xam ne yëpp dañu ko xoolee jigéen ñi ci leen dundoon laa rek ba ci ci biir ci boobu leen def bari ko mu rek ci ñoom yàlla ci wàllu nekk lañ ko am jàmm yàlla ñu yàlla boole boo bari ko mu buree ci saa yi way nekk dañ ko saa yi xale ak na amoon saa yi wala saa laaw loolu ko soogoon na yàlla la jaalawum kon tey mu def leen ummatan ñu di ñooñ gine waaye ñoom ñu di jàll de ndax am su neexoon yàlla mu dem de ñoom ñëpp ñu di ci wala mu def de ñoom ñëpp ñu di walakin bi na fi xulu dana mu xarfe man ne baaw ku soob karama ci ñu yem naa leen wa baax mu ne waye li na maalaw ngeen ñee leen ci wali aji dimbale wala am ci ñu jaagal aji ci ñeen dugal de am bay ittaxasu jàpp nañu ñu doon yàlla awliyaa waa ay yàlla ndax dañoo jàpp waa ay xelam dem rek ñu giseen yàlla wallaahu yàlla woo moom ak wàllu yi moom ak ci bële way gëm ña woo mu ngi lay gënoon di nga loo xamee dee woo moom xabirun ak yaa am na maa wax bu jëriñ ci lépp demee su fekkee ne ñoo sàkk yow yàlla yàlla ji yàlla ji yàlla yi ñu moom mooy ki nga xam ne moom dafay dimbale ñu ko gëm te dafay dimbal ko dee te lépp mën na ko yàlla yi ci def na mën nañu wax. wa ma xalaqtum lu ngeen wuute ñu ci comme ni ñu ci laal moom lan la ñu ci dem ci ko mu woo xatem ñu xatem ñu delloo la moom la laay jëm ci yàlla lu ngeen wuute ci diine rek naa delloo lu delloo la ci yàlla danaa ko ñu ci la dëgg jëm yàlla rek daal ñu bokku la dem daal mooy yàlla rabbi yi seen borom sama ale ci moom toog ci la ma tollu way leen jëm ci moom ñu ngi law seen rek faatum sama rabbi ak ci nga asmaan juróom yaar wala rek ñu juróom yaar jaala def nañu laajte ñaareel ñaar ci suuf si ci bakkan jama waaye dana jabal bakkan leen jabal yu bàyyi ko ci seen bopp ndax Allah mooy jabale Adama te ci sant la koy Adama la bàyyi ko góor ñi ci dem na seeni jabar ñu ngi bàyyi ko ci bakkan bi man yow góor yi ngi jigéen ñi rek wa min al-an'aami ci ci ci dëkk azwaajan rek ñu bindal leen ay ci dëkk yoo xam ne yi góor lañ waaw yi jigéen yasrahum dara mu bind leen fii ci def boobu mu leen def day fekk nit ñi nit naka moom teewul dara rek xam nga nekk ci def loolu moom kenn rek la te amul nit de yàlla amul bokkaale amul nidoo woo moom sax moom a yaa ngi dégg ba def na wax ko am sa fi moom a yaa ngi dégg mooy dégg nga mooy nit rek waa pare waaw taw yi ñett xaaj la taw yi du dafaari taw yi du sibaate taw yi du saati taw yi du dafaari taw yi du léegi yàlla ci jëf mooy jaam nga xam ne amul kenn ci jëf waaw ku ma yàlla yàlla lu am yàlla ko def waaw bu yàlla deful lu am waaw kooku laaj nga lu am maa xalu boobu mu adoona waaw moo taxawal tamit la faale tamit ci baati lay ko tamit ci ci wasal na ko tamit moo ko taxawal yàlla dara ñu doomu def moom te mooy dégg mooy gis dégg loo xam ne amul ay nox waaye am na te jëndi boo xam ne seen lépp lu ñu dégg loolu mooy dégg yàlla def mooy gis itam saa mu jubal waaye am na te jëndi boo xam ne lépp lu ñuy jubal lu ñu gis yëpp waaw moom ñoom la ko def waaw yàlla waaw melo yi maanaam ñi nga xam ne ñoom la bu kaaw yi taxawal ak ak ko doon ko yooyu ñu ne mooy melo yàlla yi nga xam ne ci yàlla la jagoo waaw kon dugub rek leen yitte waaw nag suñu xamoon ne loolu yooyu melo yàlla rek ko meloo rek ñu dal di xam ko yàlla rek ku xam sa bopp xam sa borom waaye dañ ne yàlla rek a am kattan sama si ku nekk am kattanu boppam ñu ne yàlla rek a xam ku ci nekk am xam-xam yàlla rek ay dund ku ci nekk ñu dund dund boppam waaw yàlla rek ay namm ku nekk boo koy am loolu mën sa bopp yàlla rek ay wax yaa ngi wax yàlla rek ay dégg ngay dégg yàlla rek ay gis ngay gis naka moom kan yaa gis yàlla loolu ñu naan yàlla maqaati bu baax a ji yaa ngi asamaan di juróom yaa wala ay juróom yaa ndam di yërmande yàlla muy taw ak gàncax kooku yàlla rek moo ko jagoo rek yàpp ci gën a yaa amee sabab rek. dinañu ko am ñoom suñu tool waaye ak suñu gën a ko ci sa bopp ñu ñaan ko ko soobee dina war naka moom. Aliou maa ngi xam la woon lu tudd sëriñ ci def def lu nekk yàlla xam na ko rek salaama ci dem noonu laa ko ñaan leen dina diini ci ci maa wax saa dama jëm kon ci moom noonu yoon yàlla noonu rek yàlla bu ñu leen di nga xam ne moom la jëm pour gën a seetlu noonu gis nga ko ndax mooy ngeen gën a yéen ci sariya bi wala bii ak laala awee naa wala ñoom ko yéen a jëm ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xam ne wóor nañ la ko yow yéen ci yàlla Muhammad bu maanaam fay naa ak li mu digal doon ci ñoom Ibrahima Ibrahim ak la yàlla dénk ko ñoom ci yàlla Ibrahima moom Moussa Moussa waaye Saali na ba am na ko bi la gis ak ñu taxaw leen diine diine Islam wala bu xabaxoo te bu leen ko indi ci ñoom ñoom bu leen am ñoom bu leen ñoom yàlla ci leen ñoom ñëpp mooy nañ taxawal diine te bu am mu ne ci parce que parce que moom yàlla rek la yàlla rek lañ war a jaamu wala ñoo jaamu ku ko may te ku nekk war nga jaamu yàlla loolu moom waa xam wuute ku wuute rek daal lay waa xam woo daal lay wan ci yoon waaye wuute ci banqaat bi surtout nag kooku moom nga ñu ko waaw moo tax ci sariyaatu waaw ko lii dañoo wuute wuute yi di jaar loolu moom du la moom la yéen a ngi sunu ummati rahmatun wuute ci sama xeet yërmande la ndax bu jaaree ko ñëw wuute rek ñu ne nii ñu ne nii foofu sax rek yow mu ci réew yow soppeekat bi waaye wuute ci cosaan yi diine nag moom mooy indi réew ne waaw ndax waaw ci parce que nga xam ne ci nga waaw te yàlla kenn la moom rek lañ war a jaamu rek ñun loolu rek réew la sax na ne ñoom ñëpp loolu lañ leen dénkoon waaw am na seen i gàllankoor sax moom ñu ngi leen di ku nekk ak seen atal waaye wéetal yàlla waaw ak màggal yàlla ak xam nga leen ma ne ci liggéey bi kooku moom moo leen soriwaat yëpp daje nañ ko ba xale ñëwaat ak inshaallah wala xam ne yoon bi nag mooy yonent yàlla moomu yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Muusa yonent yàlla Isa yonent yi itam ca Saalum la sax su ci nekk am na ci suñu sax ñu boole ko ci wala am ñu yàlla bëri. Adama moo ca gën a xale ci suuf yàlla wax ne wala xalaat naa ila Adama mu xam ne fan la fii wala mu la fii dara wax man boobu moom bokkul ci wala am ñu yàlla bëri ndax moom fàtte na de. waaye ñoom yàlla yéen na ko mooy ngeen gën a yéen ci yoon bi mu am junnee at lu mooy juróom fukki at ba su fekk dana taxaw waa am itam ñu oo leen ci yàlla ñu dóor ko ba defee nar nañ ko nekkul ko seen ci géej yoo xam ne dara bu ñu ci yàlla du ma ay gaal ci def gannaaw li ko faaw na jàpp na ñoom lam luñ pare moo xam ne dara mënu ko tekku ñu ne kaddaay ñoom yàlla bi def ñu ndabe kooku yàlla na nga xam na dogu isaa waaw ñoom lépp noonu ko te booba ñoom moom àdduna waaw daje ba du kooree ba am kan la ci suuf mu laata ñu ne yàlla ñu ko laata jaaxal ba maam waaw xam nga boo dellu gannaaw jëloon noonu wax kooku itam day yàlla na ne waaw am na dogu rek yéen a yàlla moom ak itam ko laare wala la ma waaw moo leen juróomeel de moom kenn rek mu wàcce waaw ci suuf bi wàcce ñu islam ak ñu yëpp di noonu te moom yéen ñi ci kenn dañu te yéen ñi ci mboolem kajee mboolem nit ñëpp mu dàq mboolem diine ak diine yëpp te loolu la ñuy gën a fay waaw ku ko dàq diinam nga gën a noonu ci àdduna àdduna yi yëpp su daje ñu noonam moom kenn waaw jëndul gannaaw yàlla na lu wax da sant diine islam ba tey àdduna tey waaw kooku yi dem yàlla na ne waaw am na doomu ne ñun ñooy juróom ñu wax ñu wax ñu yàlla ko wa ku la ma gën a am lu ci na ci ba ñu ma ko moom te dara xoolal li ñuy jëm ci moom de épargne yi ci la la nga ñu xoolal yàq seen yàlla yëpp ak seen yàlla yu bari loolu day màgg ci seen xol bi waaye daaw yàlla est-ce que dana mu tànn li ñuy jëm ci yëngalam man ya saa mu toog te yaa ngi dana mu jubal léegi dañuy ci téeméer man ñu ba dara lu mu jëm ci toppam yàlla dana am jaam yoo xam ne da ngeen a bëggal boppam rek yàlla ñu ko boole sàmm leen boppam mu nekk ci la ñu jëm ci téeméer loolu nag ñoo waaye jaam yoo xam ne itam dañoo ci seen borom bu ko liggéeyal di sàkk koo jëlee ñu yàlla na leen di wan ñaari ci réew mi am na waaye wàññi yaakaar naa la ci yoonu jëf la bi yoonu si loolu parce que yoon yoonu nit ci baax la foofu nag dina yàlla jaar wala ñëw ci yëpp ci dina mos laa jëf si loolu dañuy tey rek yàlla sàmm leen fekk leen ñu àgg ci téyam naka Moussa ma nga am rek jabaram rek ak am juróom waaw dëkk bi ci guddi mu réer yoon waaw jabaram ñu wëti mu dem mu dem safara rek yam def di nekk rek safara yàlla naka man la daal di ko fekk mu dem ci téye yàlla waaw mu daal di ko yar waaw daal di ko matal ci baaxataay waaw kooku dañu ko xam Ibrahim yoonam yoonu sàmm la waaw wala maa jamaa ne laa ko fogoon wala salafi wala maa amara laa laa yu ko laa fi laa amara laa ko xam wala salafi waaw laa ko so laa ko xam kala amara bi waaw jamaa ba nag yàlla ko ci ko mu xam ne yooyu yëpp dara bi ci yàlla boobu itam yoonu sàmm lañu jaar ak moom waaye yi itam ñaari xaaj lañ lii dañuy xëy rek gis bu leen ñu àgg ci kër yàlla la waaw ñu ngi gis dara ñu ngi yàlla rek waaw ñu ngi dem ci suuf ñu ngi yàlla ba àgg ci kër yàlla ba rek mën nañoo bàyyi ci yoon la waaw lii ñu ko fekkee ba mu def ci kër yàlla la wàcc moo di ñuy gëm waaw ci nga xam ne dafa toog dem ci kër yàlla ba itam waaw ñi moo di ñuy gëm de ñii dafay wàcc ci liggéey waaw waaw bu suuf su wàccaatee nag bëggee ci suuf boobu saalim la man saalim bi tam waa ngay ñu téye yàlla la waaw waaw bañ dëkk ko waaw bu boole ak suufam waaw boobu mu tam saalim la rek man ci yoon boo xam ne dañ ko bu rek mu yem foofa waaw jëm ci aatu def lóotu waaw kooku mooy man ci yoon boo xam ne dañ ko nekk ci sàmmam kooku moom la waaw ibnu abi yaatu ñu wax naa laa tax tamit ñu ngi baal soriaatoo waaw am na wala jaar ñu am ba ànd daal bu dee indi nga xabaar yi ñu jëkkee yàlla lay dem bu mu tax rek nga def ko sa yéene kooku ma du sëkk. waaw waaw xam naa baal yi itam boo xam ne naa du ko jëlee yàlla la. waaye itam moom ñu gën a ñu gën a amul rek la de waaw moo tax de ñoom ñaar ñëpp yàlla dina leen jëriñ dana dana faral di leen jëriñ lu ko soxla dana xaajale ci kër yi ñu ñu ñu ko toppale ba maa ko soxla koo ba gën ci koo ñu di daan ñu baal maa jaaxaawoon nga rek naa ñu ci leen ay ñu am sama biir bëgg wax leen ñu gaañaan de bàyyi na mu digal di leen loolu laa ko ne ma ñu du gën te kon baax sabaka boog jiitu woon na mu donc biir kon daa day ay ñu digal di leen su tax mu doon dina am jiitu woon na mais def yoon bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafay yéege seen nit waaw kon waaw mu àtte leen léegi rek ne la mu jot ko borom day laaj leen mu jot mu ko mën mu ñu tudd wax bi yoon bi dafa ko mu jëm ci way na def yoon ak ñaana wol ñu ci baawa joxe na leen téere ñun baal yi ko na ko ko mu yow wala mu salaam te ci sa ci way na ko ci ci ñu ci yoon yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam de alu kitaab ñu ci ñu ñu ñu muy ñu daal ci tabal ci téere waaye fa dama wax daal yow yonent bi di saali te gin ko ko ne wéetal de waaye wéetal boobu ñu la yónni ku ko mën a ci yow taxaw su ko xool dem jëm ci rek wax sax dañu jubal dama xamul sama gën nga réer la te na nga jub na nga yàlla digéere noonu na nga jub na nga ñi danoon loolu na ko dem ci xalaat yonent bi dégg xalaat wax sax lu ko waxoon na sax moo tax ku gaaw da jaaw ñu ne sallallahu alayhi wa sallam da jaaw na ci wax baax na ñu ne ko kaa fee ñu da jaaw amoon seen ci yow mu ne waaw te yow da ñu wóor ma xaw a ko ñu ne wóor ci bokkam ñoo da jaaw rek ñu ne ko te sa yéenam ci ak xaar ku xel yow la da jaaw mu ne lii nag sax lu ko waxoon sama moom da jaaw rek yàlla daf ko ñu ne ci li ma la ko digal loolu waaw ñu ne ci moom la mu ko fàttali وَلَقَدْ مُنْ قَطَعَ وَقَدْ عَلَ أَمَنْتُمْ لَا إِمَانَ اللَّهُ وَلَقَدْ يَعْلَمُ الْإِنسَانُ مَا يَكْتُمُ وَيَعْلَمُ مَا أَمْرَهُ أَنْ يُجْلِبَهُ يَعْتُ لَا يَعْلَمُ مَا أَمْرَهُ أَيُّكُمْ وَلَكِنْ يَعْلَمُ أَمَرَكُمْ أَيُّكُمْ كُنَّ لَهُ الْجَزَاءُ لَا يَجْدُ لَهُ بَيْنَ الْجَزَاءِ ku ne ma ci la nekk rek ko bàyyi ko moom dëkk leen loolu di dëkk jihaad la rek gannaaw bi day topp yoon wala mu gaaw fa yoo laa yàlla yi moom la doon boole ba yàlla la doon dëkk ci yàlla kon nag ci di delluwaay yooyu lay jëm ko moom yàlla wala li nga xam ne waa Jolo danañu xuloo ci laay ci diine yàlla yi min ba di nox ci wa gannaaw mu xuloo xuloo jëm ci moom gannaaw boo xam ne diine yàlla yi ay mu ngi dàqal feeñ na ba ñëpp gëm ko ñoom ñu dem ci dàggee ñoom yoroo ci jotul lay feeñ daaye ba suñu ay yàqu la mu def lay wuñ mën a indi dañuy kan ànd ak ñu ko borom feeñ waa léegi war na ci ñoom xabaluñ waaw mu gëlam yàlla de wala mu war na ci ñoom xabaluñ mu gël laa yàlla àll bii mooy boobu nga xam ne en tout cas moom mooy suñu awa waaw dinaa am lu ma jëloon ba dëgg wala ñu daan am naadu bu maa ngi ji nga xamul lu la laa la saa ba ndax day gis dañ ci xarit maa ngi jëlee nga rek yàlla xamul lu la ndax dañ ci yàlla wax ko jege na wala jegewul lépp lu ñëw ci alquran bu maa ngi ji nga mu baare ma loolu yàlla xamul lu la lu ñu rek waaw bu ñu ma adraka na waaw gannaaw xamul na ko rek istaajilu dana yàkkamti yaa ci penc yàlla Allah ci ñaan la yow ñu gëm ñu jaar ci moom rek képp ku yàkkamti penc yàlla rek mooy ñu bëgg mu defal la ñëw waaye wala dina ñaan amana gëm ñu ñoom bu ci ko la ragal la ñu naati moom waaye ñu gëm yàlla nag ñoom ñu ko xalaat waaw ragal nañ ko rek waaye yàlla mo na ñu xam ne am naa am ko mu penc yàlla la ko ñu ko lu ala dëgg inna nasina naka ñaan yu maaro lu dañu ko lu taal di def penc Ibrahima mooy nak la ñu yëg baye ñu dal ci dëgg rek Allah ya Allah fi mun aji ñëreet la mu ñaan baale yi jaam la yàlla nag ñëreet na mboole ni jaam di koy toppam ñu koy mooy yëpp ndax ku ci nekk toroo ci loxo nga nekk kenn delloo ko rek bu ko neewoon nga alaku wala ku alaku rek ci ñëwee jëm la yàlla ko dana mu wër dana mu ne saa ko mu ko bu koy wàllekkee moo la jox la nga lekk koy topp waaw ku koy mooy yëpp na mu lay boole ñu la dëgal wóor na moom alqawiyu moom it aji dëgg ci lu mu nangu alhamdulilah moom it aji dëgg ci lu mu nangu man kaa ku nekk nangu yéen it dana mu nangu ci jëfam ak laax la ci fàggu ci yow laa laax la koo xam ne dafay jaamu yàlla te xalaat la rek la ci jublu ma fi dana ko dooli lool ne ko saa fi ci fàggu ci yow la kooku yàlla dana ko dooli fàggu ci yow ku leen leen ko ko jël daan yi mu nekk ñu def ko muy fukk wala muy juróom ñaar téeméer wan kaa waaye ku nekk noonu ñu leen dana mu namm ci jëfam ak sa dunyaa xabu jëfam àddina moo fi ñu jox ko minaa ci àdduna lañ ko dogaloon de foo xam na ne dafay liggéey waa xaayo moo xam topp yàlla moo xam leneen lu mën di def rek àdduna rek lañu jublu waaye amul soxla ci àllaaxira daañu ko dogaloon daañu ko jox lañu ko dogaloon lool ci wér bu maa la yoo waaye yéen ñaan ko dinaa ko jaaraama ko mun na fi ñu nag kese waaye kooku nag perte na naan waaw naan wàlla mu ci àll na rek waaw waaye mu dee rek perte na rek am bay dawum ñaan rek soo taawee ba taare ndax dañoo am ay saytaane xamoo yoonam nañu dawum ñu ne leen dina ci dina ci yàqu maanaam yàlla loolu bi ñëw bi ci woon daaw yàlla ndax dañoo am seen saytaane yu leen tëral seen yoon yi yàqu na ñu di ko topp maanaam noonu la wala laa ka ñëw du soog bi dugal ci ko nag daa ko soxal ñu gën a ñëw te jiitu woon na xeeti yónn ci ñoom dinaa fekk ñu yàlla rek ca laa ñu waaye du ñu leen ko jàpp na wax dëgg ko fa yaa ko woon kon naa ko leen léegi de waaw waaw waaye daal dara mën na fekk yónn daal yàlla du leen xalaat te leen ñu yónn ko ñu yàlla way ñu baax ñu ne ko way ñu do war ci ma ko adi ñu adi saa du tànga ci penc yàlla zaalimiin a way tooñ ñu naan ci yëfër kus ke tena ñu way ragal ñu naa ko sowoon dara ñu fam doole penc yàlla nga ñu fi ko gune na yokk ci dool am na ñu fam dool do xam nañ ne waa baa ngi ko fay woo moom fay ga waa ko ma ñu daan la ñu ci ñoom ci kër te ni ñu akam nag daa bu dëgg daan fi ci seen kaw waa am ci kër wala ci waaye ñaan ala do ko ñu amala ko ñu ko ala ko ko am na ñu dara boole ñu raw ba ci janaati way ñak dañ ci do yaa jàngale ñu ko la yàlla ko ñu ko ko da ya ko ñu ko do ñu am la ma ta wala ñu ko lépp ñu ko rek ci teewal loolu ba am ne moo gën a jëfar ci dara teewal yaa jàngale waaw ñu ko ba ñam ko ñu rabbi ko dañu ko la wax ma ko lu mo ma ñu ko ne ak ko ñu dañu ma ko zaalika lillazii mu ngi bakkiru zaalika loolu lillazii bakkiru mooy dëggal ak yàlla mu ngi bakkiru laa mooy dëggal ak yàlla te baal ma ay jaamam rek yàlla moom loolu lay digale ay jaamam yi nga xam ne gëm nañ ko mooy aljanna lañ gëm te luñ soob danañ ko am léegi nag naan aadama gëm nañu waaw mi loolu dañu jóg saalihaatu sallallahu alayhi wa sallam waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa as'alukum man lay laaj mu leen amee ci jëfal bi ak yoon ak yoon jëfal bi ñu doon wax Alxuraan ñu ne ko fa yaatoo laa ñu ci gën a fay yéen moom dafa nar a joxe sa xurma ci jege ñaare bi gën fay rek léegi loolu ci laaj mooy ak joxe ci jege ñaare kooku am na ñaari saa yu ndare ngeen topp ma ngir jege ñaare gi dox ma ñu defee yéen ndax amul benn gis ci kuréel lu ma yéene ci gis na ci wala ñoom ñëpp ay jege ñaare yu lañ ñu topp ko nit ñi nag am na ñàkk ci seen jege ñaare waaw loolu rek la leen topp wala leen ma war a dund ak loolu pour pour baax ci jege ñaare sama rek laaj ma leen benn fay lu ma ngeen topp gi nga xam ne ñoo ni sama jege ñaare waaw te boobu tax la gën a siiw waaw ndax yéen a laa leen gën a siiw na ba ñu jëlee naa gis waaw am nañ gis waaw te ñoom ñëpp seen xol teew waaw seen xol lañ waaw soppeeku ñu ne ko waat bi jot na leen baal dafa yitu waa def kàggoo mu ne waaw waaw waaye maa ngi bàyyi ci yéen ñaari yëf yoo xam ne yu diis lañ ñoom ñaar ñëpp mu ko duñ ca xalikoo ñoom ñaar dafa ñuy rop ci man soppara yéen yàlla bi waaw ak sama jege ñaari yi de yéen yàlla bi ak sama jege ñaari yi yéen yàlla bi ak sama jege ñaari yi de waaw maa ngi fàttali yàlla waaw ci yéen yàlla bi waaw ak ñi nga xam ne mooy sama ñoom ñooy de ñoom ñooy doon yéen a doon waaw suul yi waaw suul yi de waaw saa yi ñu ne mooy ñëpp ñoo xam ne waaw asaka waaw am na ci ñoom rek lay liggéey waaw ñun ak ñun Aliou ak ñun Jaafar ak ñun Afar waaw ñu ne déedéet ñun ñu ngi leen di soxla Aliou ba ñu nga xam ne ñoo tuddee ci dëkk dëkk yi waaw mooy képp koo xam ne ci doomi Fatimatu bintu Rasul la bokk rek ndax yéen a doon di góor mu bañ màgg ba ñu mën a taxawalaat kanam Fatimatu doomam bu ñu yéen ay doomam la yéen a taxawal taxawaay ak kanam tax na jaaxal na mu réew leen bañ a dox seen diggante yéen a itam yéen a doomam la leen doon yéen a ni ma leen gudd ñooñu nag ñun ci ñooy sori fii tax na nga sori ci dëgg dëgg yi man ci wax kan jaaxal nga leen jaaxal nga leen sori am tax nag képp ku bokk ci benn aati mu ko nit waaw kay ci nit rek mën nañ laa waaye sori ndax nga ne ñaari yéen a dëgg rek li ci mën a am ci waaw yi muy taale daal yéen a na ne laaju ci ñi benn fay waaye laal ci ñi waaw ñun nga xam ne ñoom lañ waaw nañ leen topp rek bu ma jox tamit ku fàq noonu asanu doon toppal yàlla na ci biir boole yàlla ñu naan ko gars yi moom moom la ko doon jëlee képp ku topp yàlla yàlla bu la ko doon yéen bu dee benn bu ko yéen a ko këree na laa na xeer la parce que mu aju ba ñu ne ma ay bakkaar sant ko gudd waa am sant la mu ngi yore am bëri yàqu noonu dañu wax ne xëy na ñu ko yonent bi allah yaa ko yàlla ko ci woon naa dañoo wax ne yonent bi moo ko alxuraan bi yàlla waxu ko day yéen day laaw dem soogoon na yàlla yàqu mu fat ala am ñu ci xol rek su ma neexoon ma fat sama xol bi sama mu lépp lu daa la ma xadi waaw def na ko itam war ko yemu dan laaw dana sori yàlla al baatile nar ya nga xam ne ñoo ko wax rek ويقول تقول تقول على قدر بكلمات تبارك إذا ونك ما علم الله قمنا وهم هو الذي من ربنا قمنا يحضرنا من الله توقف في ما تبعي في جوا يا لما يكرا قمنا سلنا مسلم فأي بوتي أي جام جام من من دل وأعطي سنتي بيننا كبرام رك يا لما قلنا قمنا رك وأعطي أنا من بيتي وجام waaw ñu ngi day day day di ko jëlee boo xam ne da nga doon tukki da nga doon dund te yóbbale waaw sa mboole maalam ak sa naan lépp ak sa njàppukaay yaa ngi ko fekk jëlee nga ngay ndox rek jëlee nga réer la de nga nelaw teew ba mu réer nga ñu ko waaw bañ dem ko gis loo ko nga ñëw ci benn garab na naa ko bii nekk ci teel te sa nelaw ba yeew rek rek jëlee nga nga ci njaat wala nga ñu dëkkoon na ngay jógee waaw ne lépp lu ñëw ci suuf loolu la yàlla jógee te yàlla jógee ci moom moo raw na ko sa su jógee ci jëlee moom nga def nit mbaa xam rek na dara nekkal moom moom rek nit nag mooy réussir waaw balaa ñoo nangu la balaa ñoo nangu si daal jaam bi rek ñu defal ci lu bon waaw te bu jëm ca sans que su dee loolu jëlee lu mucc waaw loolu mooy sàkku tuube waaw nit na waaw kii kéefër mooy génn ci kéefër suuf si daal loolu mooy dugal am de waaw suuf ba xaasi nag mooy waaw suuf jëpp ci ko ñu nañu waaw ñoom doo ko jëpp ci ko yoo xam ne ñu sant la leen dugal xaasi xaas nag waaw mooy suuf sa tuub de waaw bañ a xam xam ne tuub la waaw moo tax Cheikh Tidiane wax bi moom billahi ne billahi laa ilaaha mais que léegi gis nga xamal ci la tey waaw maanaam di ko di ko di ko ko fa ma xamal ko waaw boobu la muy jégal ñaaw bi ñoo xam ne jaam tuut na ko yàlla jégal na ko de wax nga jégal na ko waaye daf koy soppi ci daf koy soppi ay ji waaye yàlla mu dana mu xam maa yaakaar noonu la danañ def ko rek te lépp lu jaam def yàlla xam na ko de tey jii ñu gën a nangu waaye tey jii ñu gën a mën ba léegi nag ñaareel am na comme jiw am na dañuy jot saa yaatu ba saa yaatu naa ko dee ñi nga xam ne dañu gëm yàlla tey sopp yàlla yàlla dana leen nangul lépp ñu ko ñaanee rek waaye jiw moom dana mu bëri leer ñu fas yéene téye woon rek kon saa fi mu ne day bëri waaw ñoom waaw ñu bëgg a fekk ci biir ay ko wala ko sa son baa ko sa kooku lu ko wax xam ne lenn nii pour ko ñoo lu mu gët ne waaw ko ko ne yàlla may wër dëgg yaa naka ñu yére yàlla ne wala ko sa son baa ko sa yaa xam ne yàlla ñu ko war sa lien baa yi ñaan mboole ni jaamoon ba xaw ko ko ñu jaw ko jam ni nga kon yàlla dafa jox wër sa lépp waa am lépp moom kan ku ñàkk xam ko bu jëni ko fa ne lay daw de raakam nag dina si lu dana mu wasoon te xabariñ ci kenn maa daaw lu mu soobee waaye nag na ko soob lay joxe wa ko suuf mu jaam bi soobee am na jaam yoo xam ne am na ci ñoom ne dara bi lañ xëy na lu may xam su ñàkkee rek seen jiwe yàqu mu jox leen am na jaam yoo xam ne yàlla xam na ñàkk rek xëy na seen jiwe dina moom rek daal di daw ñooñu jox leen lu ñàkk loole am na jaam yoo xam ne léegi fekk na leen di taxawe waaw seen diine ji ñu ràggoon rek dañu wàcc diine am na ñoo xam ne ràgg rek day tax ñu diine def nii ñu doon sukalaat bi ñoo ci nekk rek lay yëngal sa diine rek yàlla xam na ko te moom day jëfal yow de su fekkoon ne dafa yaar wax ak ñoom ñëpp waaw fan bu ndaw de wala sa gis naa fi ñu ne si ne dana mosal ci xarit bi tam maa sa war mu soxla loolu nag moom xabirun ak am na mu gis nga jaamu xam na leen de xam na seen baaxum naka mu xam seen zahir de woo moom buur xam na bii mooy buur nga xam ne dina ji dem wàcce am xëy na soo ñun daal di maa xam ne soo fekk naa mu naa ko de yàlla ci la am na bu boor bi ñu ko nga xam ne kay ak bu nekk ci doon defe ne taw moom kenn doon ko gis jaag yi bu boobaa mooy wàcce taw bi rek ndax ñoo xool te ñëw di gis naa nga ko fay indi rek waaw ñu ngi ci xool ba xam ne dafa nekk sax nga jënd taw ñu naan am na taw lu ñu mënatu ndax it am na mooy wàcc taw gannaaw bi ñu naan ko rek waaye suuf dana mu wësal am na solo dana ngeen woo moom ak wàllu jiw moom la ñu ak ñu ngi leen ñaan way dëgg ak am na ci boor bi dëgg naa ci ak.
am na am na am na dëgg-dëgg la ñu doon ko lu ci tëkkal xam yàlla nañu yàlla nañu soriante ak yàlla nañu xaqiqat yi yàlla nañu soriante mooy am na ñoo xam ne ñoo tànnee taxaw ak yoo xam ne dafa ñëw su fekkee borom xam-xam lañ jóge seen xam-xam jënd leen ba yàlla kon yàlla ak yàlla nañu waaye loolu mooy balaa gannaaw rek balaa yàlla daanaka nga boole rek am na wala bëgg bëgg rek moo tax xaaral jënd ci wàllu rek waaye biir bi wàllu rek xaaral rek li ko fekk lu ñëw ci ñun yàlla ñu ci yàlla la ñëw ñu ci yàlla la maanaam ñu ci yàlla la ak maanaam ñu am ñu xanaa maanaam ñu fekk ñoom ci ñu daal dana la ci yàlla la ko ñu ko ko fekk rek ba wut rek dana jëm ci sa bopp dana jëm ci sa bopp jëm ci sa bopp jëm ci sa bopp yàlla rek nag yàlla dafa mën a tudd ci yow rek dañoo
waaye yàqu dana mu jégale am kese yi ci ay mbëri